Dakar instant comme son nom l'indique a ah, lépp loo xamante ne ah, dañ ci ànd ak yeen ci à l'instant rawatina actualité bi nga xamanteni mo nek ci mim tay a ah, suñu gan dañ ci waxtane ki nga xamanteni modi Serigne Cheikh Bara Niane nekk fële ca Cambérène 2 ak Sacré-Cœur 3 né na la kenn dootu ko présenter dañ koy baye ak mu nuyu ñu koy à travers Dakar instant Serigne Cheikh Bara ñing ngi lay nuyu ahonsu billah bismillah inna walillah la hawla wala quwwata illa billahi aliyul asin man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah, ألم نشرح لك صدرك ووضعنا حنك أسرك الذي أنقذ شهرك ورفعنا لك شكرك فإن مع العنصر يسرا إن مع العنصر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ñoo ngi دي di دي di leen fay nuyoo fay di fay lislaam mhm. di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mhm. macha allah nu bi am na solo loola tay mbokk internet yi tey moom moo nar a doon suñu gan waaye dañ koy doore première partie ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy kan fu mu doore waaye itam li nga xamante ne daf koy def ci wàllum seet ak wàllum ñaan fan la ko doonoo sëñ bi waaw alhamdulilah sëñ Cheikh Bara da nekk na jëmm joo xam ne mhm. dina yomba wax ci réew mi ak bitim réew ndax nekk nañ koo xam ne nekk doomi soxna say daba Mbàkke mu sëñ Baara mu sëñ Touba ci suñu côté yaay macha allah nekk koo xam ne sët sëñ Ibra ñaan mhm. mu maam Omar ñaan nga xam ne sëñ Touba da koo seexal mhm. kon suñu ñaari côté yi ay sëriñ lañ mhm. bu loolu amee tamit ñu juddu jàng alxuraan fan ko war a jànge mokkal ko jàng xam-xam jóge fa dem ci diwaanu Afrique yi daanaka boo dee xool dem nañ ci fanweeri réew ak ñett ci àdduna bi loolu nag wax baax na ngir ñu xamul xam moo tax la wax ci alxuraan ne fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuuna yéen ñi xamul ba leen xamul dee leen laaj kon lu baax la ci ñi xamul xam ma parce que yéen soxna sam suñu bam da ko wax ne ko wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis yow xéwal ji ma la jox partage ko ngir ñu xamul xam kon nag loolu képp moo tax suñu kàddu yi kooku ma sëñ Cheikh Bara pour ñu gàttal ko rek waaw macha allah sa biiru kàddu léegi dama dégg nga ne dem nga gëstu la mu jàngat la wala loo fa doon def. waaw alhamdulilah réew yooyu dem nañ fa di gëstu xam-xam xam nga ñun. xam-xam bu ci mel ni ban mën nga ma ci limal juróomi pays. waaw xam nga dem nañ Guinée Bissau. Mhm. dem nañ Nigéria. 2005 la njëkk dem Nigéria. Mhm. dem nañ Cameroun dëkk yi ñu dem yëpp mu ñu ko lim. mais Nigéria dégg naa crack yee fay dem de. waaw alhamdulilah dem nañ Abuja. Mhm. dem nañ Kaduna dem nañ Pétako dem nañ Kano dem nañ Maiduguri. dem nañ Kaduna dem nañ Saria. Gini Guinée al gini bisa Bissau kasmas bi dem nañ Bisoora. Mhm. Saade Bengo Kanjunka. Mhm. dem nañ Ngaabu tamit. Mhm. dem nañ ba lépp rek xam-xam xam-xam dafa yaatu. Sénégal nag li ñu jàppee xam-xam mooy. jàpp nañ ne nit xam-xam mooy da nga jàngal xam mokkal ko mën nga jàngal xam bu mokkal ko te doo am xam-xam. mën nga jàngal xam bu mokkal ko te doo mën ñaanal nit mu nangu. li tax ñu gëstu yooyu nag dafa am ñuy ñaanal ñoo xam ne dégg ñu olof ñun. ni ma waxee nii. làkk yi ba dama koy d'accord. moom français la. espagnol mhm. portugais anglais yëpp dama koy làkk. loolu nag yëpp nag. Mhm. sama stratégie mhm. ak ni may dunde ak ñi may jëflante ñoo xam ne xaaj bi dégguñu olof. moo waral lu mel noonu. xëy na ñu si ëpp sax buñ euh, tàppee. ci internet mën nañu gis sama yeneen vidéo yoo xam ne dafa ma ko yoon du Dubaï la. moo tax ma ne la dëkk yooyu dañu faa dem. am ñoo xam ne dañu fiy xam-xam. am dëkk yoo xam dañu fa ñëw ñuy ñaanal. loolu mën na Guinée Bissau ak Conakry ak Nigeria. gëstu xam-xam moo ñu fa ni doom adamé ñu la xéss ñu ñu ñor ñi kat non xam-xam yu bari da xam xam-xam zulmaani yu am xam-xam nooran yu am xam-xam batatu am xam-xam salfi anda am xam-xam krafil am xam-xam xamsul da fa am yoy yep ay xam-xam la waye Sénégal nag yëpp ñom bo ne serigne nga rek li ñu ki rek moy dafa war alcorane dedet mën ngaa bañ julli mhm. bañ war bañ def te deew li nga ñaan moom mhm. ñun nag dañuy julli dañuy def lépp lu baax dañ koy def mhm. waaye nag am na xam-xam yoo xam ne am nañ ko yoo xam ne suñu bëggee def ni dara dañ koy def léegi mu jàpp léegi loolu xam-xam nga soo xel léegi mu jàpp léegi waaw dafa am euh, say xel mi am fa fa xoog say xel mooy euh, dafa am addis boo xam ne dafa ñëw ñu ne xam-xam mooy da war xam téere yu bari lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt war nga xam ne ma téeméeri téere ak ñaar fukk ak ñeent Sénégal ñi ci ëpp nag juróom-ñaari téere ñu ko. lu xam. waaw comme li man exemple ci resale bi. dëgg la xam nga Sénégal resale benn resale lañ xam. te resale am na junni junni junni Sénégal benn benn resale fi resale bi kese lañ xam Sénégal. mooy fa fa faaxookul si min xalimin xam-xam boo gis am na xam-xam boo féete kaw waaye yow mi nga xam ne xamoo loolu nag. dalay jaaxal buñ la koy wax waaye nag faaw ñu leeral la ko waaye bu fekk ci kaw leeral gi dañuy fekk ba xam yow gëm nga ko. ndax gëmoo ko parce que am na ñoo xam ne yàlla daa kaske seen xol yi duñu dëgg xéewal duñu gis xéewal yàlla ko ci alxuraan mu ne xatamallahu ala xulubihim wa ala samihim wa ala absarihim xishaawa am na ñoo xam duñu dëgg xéewal duñu gis ndax maa kaske seen xol yi man suñu borom moo tax wax ci ki ngay waxal bu déggee ci li ngay wax mu xam ne xam-xam ngay wax day yomb mu gëm waaye koo xam ne laa critique rek loolu mënut a ñàkk ci àdduna mhm. loolu ñàkk gis-gis lay doon ak ak ak ñàkk wàllum critique mën nañ ko tuddee comme ñi nga xamante ne seen mbokk sëriñ yi la parce que léegi euh, li ci mel ni trou mara dañoo bari mhm. nit ñi dañuy sol seen koppate ak seen trois pièces rek ne mara la mara lu ñuy jaay mbubb gu rëy wala lan waaw xam nga sëriñ dafa nekk lu jafe sëriñ ci yombul mhm. képp ku na sëriñ nga déjà sa famille dañ ko war a doon boo sa famille doowul nga jàng yàlla may xam-xam boo xam-xam bi yàlla may loolu ni mënoo koo wax nit ko yaa waye nak man. même suma togu won di genn ci li nga xamne moy ni li tuddé joko kay pour gis nit. suma togu toogee fu ma sax dañ may ràng dañ may dañ may ñaanul bayre la wala. de du bayra mhm. lool li ñu fa law taxis la taxis mo jagle yalla mhm. dama jur dëkk saa maam nekk sëriñ. sama tan day ko mako côté d'accord lool du li ñu pratiqué ab la dal du li ñu pratiqué. Mhm. du li ñu du dëgg ñaaral ba ma judd rek yàlla def ma nii ma mel. di faj ay jaam yi ma judd rek dem fépp ci àdduna bi. xam lépp teel ma ko alxuraan jàng xam-xam yëpp. xam-xam sëriñ tamit du loo xam ne ku mën ngaa sol la man ma weddi kenn waaye nag bu fekkee sa famille nekkuñu sëriñ. dèjà yow yaa war a wan nit ñi lan moo tax nga nekk sëriñ. di wax la neex. te andiwu bu leer andiwu addis bu leer. kenn xamul li ngay wax wax ma ku nekk man. wax ku nekk man. te dégg-dégg yi tamit ñëpp bokk ñu dégg-dégg. Mhm. da ngay wax ñi déggee nii ñi déggee nii. Mhm. waaye dégg-dégg yëpp nag li ci ëpp solo mooy. Mhm. inni fi saa ak laata loolu baab li ulil li xaw mi yaqilun li xaw mi yatasakkarun li xaw mi ya yaqilun. yàlla bi mu bind alxon dafa bind ne alxon pare na yéen ñi am xel laay waxal. kon man mii di wax nii. waxuma ak dof te dof moom. moom lañ naan ko xoolal lee. waaye koy rëbët kenn ko xoolalee. <laughs> kàddu yi am na solo lool mbokk internet yi nga xamante ni yéen a ngi koy seetaan à travers Dakar Instant sànq sa biir wax da nga ne dem nga fu ci mel ni euh, Italie Espagne ak euh, li nga xamante ni euh, waaye itam tey jii koo xamante ne espagnol la tey jii bu ñëwee tey di seetlu ci yow wala mu soxla la langue boobu ngay wax ak moom. benn langue mosuma woo ci àdduna bi. Mhm. maanaam interprétation interprétation pour nit damay woo kenn ne ko interprétement mhm. pour ma dégg li ma wax ak moom mhm. amul ci àdduna bi mais foofu dogguma la da da nga def li nga xamante ni moo di espagnol da nga ko jàng wala dafa ñëw naturel déedéet déedéet jàngoo ko xam alxuraan bu jiite ci yow lépp day yomb ci yow mhm. bi xëy na sax après naa war émission yoo xam ne spécial anglais lañ ko defoon <laughs> ok bu jiite ci yow lépp day yomb waaye loolu baatin ci mbokk na ci baatin nag du looy wax nit mu ngi mel ne jigéen ñu bari toog ñëpp nekk ay mesure kenn ci jigéen ñi jekk-jekk gis règle ñeneen jigéen ñi gis ko kersa googu mi am noonu la toog ak ñoo xam ne xamuñu baatin dina mën baatin noonu la mel ci yàlla baatin du li ñuy wane baatim du lu ñuy wane kàddu yu leer na waaye dañ koy def rek li nga xamante ni moo di actualité bi nga xam ne moo nekk ci mim réew muy kay nga xamante ni kilifa kilifa daara ji nga xamante ne yoon daf ko teg loxo muy cheikhuna gay nekk fële ci Louga loolu noo ko gisee ak ban jàngat nga am ci loolu waaw oh, alhamdulilah nit ku baax la. Mhm. te ñoo bokkoon benn daara. doom si Moustapha Gueye la bu Diourbel fa laa jàngee. yow xam nga ko. ñoo bokkoon benn daara. wax ñu mooy kan. daara si Moustapha Gueye la nekkoon. Mhm. di doomu kilifa tamit. Mhm. nekkoon ku bëgg alxuraan. macha allah fa mu jàngee noonu man jaar naa ci daara jooju muy Diourbel kër sëñ euh, Moustapha Gueye. moo fa jógee dem kër Cheikh Abdou Dieng kër sëñ Malick Dieng fa laa alxuraan ba mokkal ba bind kaamil. bind juróom-ñaari kaamil. Euh, daara nag dafay nekk loo xam ne symbole Sénégal la. Mhm. gis naa bëkki démb dafa am benn kilifa gu mag. Mhm. kilifa ci réew mi la. Mhm. ma toog bureau mu woon ma vidéo boo xam te 25 mois dañu koo def. si journal yi. ma ne ko man a jàpp naa mbir mi agul fii. ma ne ko nag daara di kenn mën ko xeex waaye nag. nañ xam ne suñu borom. mën naa na tëj suñu alxuraan. yàlla moo ne maa far naa fi kii daal min shay alxuraan bayiwul dara. Mhm. alxuraan mooy dëgg tey mooy dëgg suba mooy dëgg naa suba. Mhm. xaw lu ñu bëgg nag ak lu ci mën dem waaye jéng man mii jéng nañ ma. jéng nañ ma 11 ans fukki at ak benn jéng nañ ma ko. 11 ans lañ la jéng. waaw loo doon de xanaa da nga tëwoon ci daara ja. <laughs> fukki at ak benn jéng nañ ma ko te mokkal naa alxuraan te loo wax ci alxuraan mën naa ko tari. Mhm. te jàng xam-xam xam adduna bu baax jàng risaala jàng arab lool. fukki at ak benn jéng nañ ma ko kon nag loolu lu fi yàgg la. Mhm. te kilifa diine gu baax goo gis ci àdduna bi. Mhm. ak borom alal joo fi gis. Mhm. boo demee jëng nañ ko. benn mën naa ci limal ay nit benn sëriñ boobu doomu daara la. nit ku baax ma ne ko apparence. jàpp bu sëni koo gis nga ko. ñoom ñëpp euh, bokk na ay jaar waayu daara. ci ay jamono. alhamdulilah yàlla moo def rek gis gi amatut. tolluwaay jamono la. dëgg la mënoo def foo toll di gis nit. dëgg la tolluwaay jamono jamono parce que. yàlla moo ne. du ma ñëw di leen soppi yéen a lu war soppi ngeen soppi ko inna allaha laa yuxayyiru maa bi xawmin xataa yuxayyiru maa bi anfusihim mu ne du ma ñëw di leen soppi yéen a xool yéen adduna bi li ngeen war soppi ngeen soppi ko adduna moom fa mu nekk ma tey ma nga fa waaye nit ñi ñooy moo tax daal euh, ginnaaw xalifa bi wax na ci moom du ma ci mën a sori daal ci gàttal xalifa bi wax na ci waaye aussi itam dañu gis li nga xamante ni euh, moo di euh, mbokkam yeeg oustaz daara yeeg xaritam yeek ñëpp jug ànd moom pour dooleel ko waaw li tax mooy képp ko dooleel li sam nga képp ku ko dooleel lislaam nga dooleel mhm. képp ku ko xeex wala képp ku def loolu yaa man da xeex lislaam mhm. ci sama gis-gis man ak ci sama jàngat mhm. parce que alxuraan mooy téere bi yi fa am waaye bi nga xam ne moo wér moom du soppeeku mukk moo tax ma ne sëriñ daara boobu su ma sañoon daal xam naa ne dañ ko bàyyi sax dañ koy bàyyi dañoo bokkoon benn daara boobu jàngalegul ñu jàng kër sim soogeeñ dinañ ko bàyyi sax parce que wax mhm. ji information yëpp xam nañ ko waaye du ñu wax ci public ak yooyu mhm. waaye ci sëñ bi dafa am waxi baatin bu mu wax sëñ Muntaxa mhm. ah nañ leen diglu bu leen digloo ba pare ñu xool leen ba xam ñoom li ñuy def ñun ñu xool li ñuy def suñ defee liñ bëgg ñu bàyyi li bëggoon a def te jàpp fan jàppoon xam nga loolu waxi olof la te waxi kilifa la tamit te ñu xam baatin dëgg ñoo bëgg a ñoo mën a xam li sëñ bi wax ko xamul baatu mënu ko xam. dëgg la. kon nag moom moo tax ma ne jox lu bari. Aïcha foofu lañ cay moom mi nga xamante ni moo di Serigne Cheikh Bara Niane xam na ko bu baax wóolëram la woon waaye itam ñoo bokk fële nga xamante ni daara ji nga xam ne fa la nekkoon ñoo fa jàngandoo dañuy ñaan rek lépp loo xamante ne jëm na ci coow la yàlla na ci yàlla def ndox bu sedd guy dañuy ñëw ci wàllum phobie. noo gisee loolu ci mim réew. yow amoo ay clients yoo xamante ne dañ daan ñëw fii nga xam leen ñu yëngu ci wàllum phobie. Alhamdulillah, alhamdulilah man képp koo xam ne li nga nekk yàlla bëgg ko yéen di bëgg suñu taw bëgg rek. Mhm. man su ma xamee du ma la ñaanal. noo gisee bi léegi ci ci réew parce que tey jii da nga yor sa xaalis gu baax dem di liggéey wala di associé yow ñu lay jox xaalis bu bon te xamoo ko. waaw lu ci mën na am rek. Mhm. adda bi nañu xam ne tamit moo toll foofu. Mhm. waaye na gën a yokk sécurité bi loolu nga tudd noonu. yow joxaguñ la loolu nga tudd noonu man da ma du ma tudd. waaye. lu tax doo tudd tur bi. xam nga xëy na. yéen say gis-gis. ak ñi may waxal. ak mhm. seen gis-gis ak man ni xame xamee ne ma. Mhm. noonu laa toll ci réew mi. Mhm. waaye daal lu ci mën a yàlla na yàlla sotti ndox mu sedd guy. te Sénégal jàmm rek moo fa naan. ak lu ci mën a dinañ xool mbir bu baax baax. nañ ko xool mbir mi à waaw xool tam fi muy jógee. mbir moo gis tamit ak kër moom xam nga kër moom benn maçon du ko tabax. mbooloo koy tabax. benn birig tamit ngay teg. fondement birig boobu mën naa moo téye kër gépp te birig bi bala ñu ko bala ñoo teg ci birig boobu dina am lu téye birig bi mhm. muy ay ay mbir mhm. kon daal nañ jéem nañu xool mbir yooyu daal waaw c'est-à-dire ña ne ma fi euh, famille ak yooyu nañ ko xool waaw mooy li nga wax yow yaa ko wax mhm. waaw <laughs> man de li ma ci metti mooy moom moom bëggul wax te xam na bu baax li mu a wax <laughs> waaw noonu baax na dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy violence faite aux dafa bari lool eh, eh, mën nañ wax ne dañuy toog ñaar ba ñetti weer dégg ko bu ñu yaakaaree jeex na ñu toogaat quelque temps déggaat keneen te ñu ci ëpp dañuy sëy ak seen borom kër yi lan mooy problème bi foofu. waaw loolu moom mën naa nekk ci côté yu bari. Mhm. mën naa nekk ci côté rab. Mhm. mën naa nekk ci côté mhm. tamit ci ñoo xam ne ak fiiraange. mën nañ ci ne ay liggéey def-def. ñëpp ñeent ma a yaakaar man nag a yaakaar. ci ñi koy def ñaari mit képp la. côté fiiraange wala côté rab. rab ndax rab day def loo ni lu mel noonu. dañuy taal sa jëkkër xam nga amoon na fi. Maris. dëgg la wala nga jekk-jekki jëm si jëkkër paaka wala mhm. nga tëdd guddi am lu lay merloo wala mhm. nga nga nga yu mel noonu daal xeet yu mel noonu rab mhm. loolu laa a jàpp te boo koy def doo ko tey doo ko tey rab dafa nekk loo xam ne borom xam-xam yëpp dañ ci sukkandiku na am na rab moom moo tax ma jàpp ne rab mooy def loo nit lu mel noonu loolu laa jàpp man sama gis-gis rab la daal léegi loolu tey ji koo xamante bëgg nga mu dañ parce que itam ani ah, li ñuy wax sans su il est temps dafa wara doy tamit mhm. ndax te daga jigen moy yaay jigen moy lepp jigen mhm. trésor la ñu jël ko saa su diko di ko métital di ko teg loo xamante ne wul à la fin yow mi di jigen sax da ngay ragal sey lan mo ci solution waaw lool mom amna solution mhm. parce que rab mom comme boo xam moo xam boo xam da nga koy gis mo xam rab bo xam ne ko gis nga lay dikkee moo xam ne nga tëdd guddi te sëy ak mom am na yo yoo comme khulu oya ilaya annahu istamaha nafaro mina jinni mu ko bindee ba pare boole li ñu koy booleel ak limon yi. Mhm. jox la nga jëfandikoo ko moom rab c'est fini. doo mhm. doo nekkati ci yow rab. am na yeneen mbir yoo xam ne nag. Mhm. du bind. ay mbir yi ñuy defar la. jox la ko nga jëfandikoo ko. bu ko jëfandikoo ba pare boo ko jëfandikoo ba pare. moom rab moom ak jinne saytaan ak loo xam day yàq. moo xam da ngay faral di toog di tiit ak yëpp moom day dañ. yooyu moom alhamdulilah rabbil alamin dañ koy gàttal rek pour faram a. ginnaaw yooyu daal kàngam waaw. kon nag yàlla na yàlla xiir ci def lu baax. allahumma amiin di wax nag képp koo xam ne aajam na dafa itam yàlla boo ma jot. amiin waaw koo xam ne aajam na faju yàlla boo ma jot. <laughs> yàlla boo ma boo ma seetaan sa yàlla nga ma critiqué. mais mbaa nekkoo sëriñu VIP am na sëriñ yoo xamante ne dañuy dañuy joxe seen numéro balaa nga leen di jot da ngay sonn tamit doo sëriñu VIP. man dama ne la ko ajum la te faju yàlla bu ma jot. Uh-huh. xam nga man mais xam nga lu tax wax sëriñu VIP am na ñoo xamante ne ndeysaan dañuy bëgg a faju am comme yi nga lim fii yëpp ne mën nga ko faj tey ji uh, amuñu doole gi wala amuñu. xam nga man jours laa liggéey uh-huh. samedi dimanche leen laa liggéey. samedi dimanche ak lundi. waaw jours yooyu client yi ñoo xam ne moo xam Sacré-Cœur la wala Cambérène uh-huh. da ngay war ñoo xam ne xam nga kilifa yàlla koy def nit. la kilifa kenn du leen la kon nga leen di recevoir. waaw d'accord ay kilifa lañ sax parce que catégorie parce que xam xam la la la incha allah bi mhm. di ñu mën a jot bu allah bi di leen a a baax a baax nag mhm. macha na solo donc ba tax na nee naa la képp koo xamante ne woo nga ko di nga ko jot waay itam dina la wax foo xamante ne dina fa nekk donc bu leen tiit bu leen jaaxle képp koo xamante ne am na loo bëgg a xam waaye itam wala nga bëgg a gis jëmm ji di Serigne Cheikh Bara Niane Cambérène 2 ngay dem wala Sacré-Cœur 3 77 598 a à 21 mais ñu ñaari baat ci anglais ak ñaari baat ci espagnol from Senegal because all thing I'm tell you is really for me. Mm -hmm. Now I'm in the commander of the sacre culture. You can call, you can test mm -hmm. because I don't have time to talk mm -hmm. because life is not this. Life you can do something, mm-hmm. people see this is life. Mm-hmm. I'm getting my present mm-hmm. of